salaamaaleykum nuyu nañ leen ku ci nekk seen tur ak seen sant waaw comme d'habitude te képp koo xam ne nii abonné goo ci seen bi abonné nga activé cloche bu ko defee benn suñu vidéo dootu la rawati mais surtout ah, ngeen di liker di commenter que partager loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax dañuy wax ci kan ah, sunu international sénégalais bi di Sadio Mané moom mi nga xam ne jamono ji ah, mu ngi fële ca club bi ñu naan Bayern na jamono ji nag li ñuy leeral mooy que Jean Christian moom moo génn di wax na ne actuellement Sadio Mané moyen bi ñu floqué numéro 17 euh, fële ca Bayern na mooy moyen bi nga xam ne moom moom lañ ëpp lu ñuy laajaan ah, moom lañ bëgg a jënd carrément vraiment mu doon loo xam ne mu ngi leeral na ne fierté la euh, loolu di firnde na ne actuellement seen club bi di Bayern na yiir nañ une star mondiale ah loolu daal di confirmer euh, kàddu yu nagal si man tey di weddi kàddu yi ki ñu naan Rumaniga ah, vraiment nekkoon ancien légende bu na mi gis nañ ne bayar ah, na ci seen benn membre ci conseil administratif. administratif bi moo génn di leeral ne ne euh, ñu naan ko Jean Christian mu ne Sadio Mané actuellement moyen bi ñu floqué Mané 17 euh, ci équipe Bayern bi actuellement mooy moyen bi nga xam ne moo ëpp lu laaj mooy la mooy le plus demandé ah vraiment lool la euh, génn wax suñu international sénégalais te it nee na loolu fierté la te du def lu ko du rafetlu ko actuellement loolu day firndeel na ne ñoom jour top mondial star planétaire moom la Bayern recruté muy Sadio Mané sunu international sénégalais loolu moo nekkoon xibaaru ngoor gi leen xaar ci. ci commentaire nan ngeen ko gisee ngeen kon ne di abonné ci chaîne bi activer cloche ci ñu ko defagul mais surtout ngeen di liker di commenter que partager ba beneen yoon ci yeneen i xibaar